kàddu yu gàtt lay doon ndax waxtu wi jot na maa ngi diital ci sama kàddu cant koo xam ni am na tàmbali waaye amul fu mu yem di ko sant sëriñ bi sëriñ Touba Cheikhul Khadim Khadimu Rasul di jël cant boobu di ko teg ci loxoy suñu sëriñ bi suñu yaakaar Cheikh Mouhamadul Mountakha mu tegal ñu ko ci njabootu Serigne Touba gépp ñi ci kan ginnaawam ak mbokk taalibe xam naa ni bu waxtu wi tollu woon fii doon na rajo bu waxtu wi tollu woonul fii dina leeral yu bari yu ñu mën a leeral ci ki nga xam ni moom la ñu jagleel bés bi muy suñu yaakaar di a Cheikh Saalihu Mbakke lenn yàlla yokk ay ngëneelam yokk ay leeram Cheikh Abdoul Khadr ñoo lay nuyu di la dalal di la jox sa wàccuwaay di la jox ab nuyoo nga tegal ñu ko ci loxo suñu sëriñ bu baax ba muy ay Cheikh Mbacke sëriñ Cheikh Mbacke ibnu Cheikh Saliou Mbacke mi nga xam ni moo nekk ci bopp njabootu sëriñ Saliou too toogaayu sëriñ Saliou bi te defarul toogaayam nii ñu ko xamee ci nekkub sëriñ bi moom lañ ko xamee bi ñu noppee gi sëriñ bi ndax moom nii ñu ko waxee léegi benn yitte rek la am muy li diine benn yitte rek la am muy lislaam benn yitte rek la am muy liggéeyal Sëriñ Saliou Mbacké ñoo ngi koy nuyoo di ko siyaare di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla defal ak bëggam di ko nuyu di ñaan yàlla yàlla yàggal ko fi wéral ko bi sëriñ bi jëlee bés bi ni bés bi njëkk bi dañ koy jagaleel seen Saliou Mbacké ñu dem ma dem fa yëgal ko ko la ni ma woon bu ma manoon maay ñëw waaye dinaa yebale ñoo xam ne ñii ñooy man bi délégation bi ñëwee nga jiite ko xam nañu ni yaay Serigne Cheikh yaay Serigne Saliou yaay njabootu Serigne Saliou gépp ñoo ngi lay dalal jàmm waaye di wax ni liggéey bii liggéey lañ ko kenn ku la ëpp sab liggéey la liggéeyub Serigne Cheikh la liggéeyub Serigne Mountakha la liggéeyub njabootu Serigne Touba ak yépp bi ñu tàmbalee liggéey bi ca pàkk bu njëkk ba Serigne Saliou moo ko rëddoon ba am plan ñu di ko ba plan bi méngoowul ak li nga xam ne lii moo méngoo ak jumaa ci la Serigne Saliou defar plan bi may sa Touré day architecte waaye plan bii Serigne Saliou Mbacké moo ko defal defar ko mu nekk loo xam ni xajuloon ca pàkk bu njëkk ba sax ndekete booba nëbbal nañu pàkk bii ba Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ñëw ñu jox ñu pàkk bii moo waaxu ba dugg fii ni ma barab baa ngi da fekk booba bari na ndox bari ñax ñu tiit defe ne barab bee da koy gënal waaye mu dugg taxaw ne barab bi fii la kon moom réeroowul woon ak suñu yaakaar jooju muy Cheikh Saliou Mbacké bu ñu ko defaree nag ci kàttan ñu suñu borom yàlla jàppale ñu ndax ñun mënuñu dara xamuñu dara amuñu kàttan amuñu doole amuñu xam-xam sëriñ bee ñu jàppale di ñu tette di ñu dimbali ba liy taxaw ci ndimbalam ñu jël bés bu njëkk bi tudde ko Cheikh Saliou Mbacké jaadu na ndax jumaa ji Serigne Saliou ci jëkk moo ci boo demee Mbàkke ñoo ngi jéggalu sax di la yóbbante waaye boo demee nga ni eh, Cheikh Serigne Cheikh taalibe yépp bëgg nañu te bu taalibe yi bëggee Serigne Serigne Serigne Mountakha na Cheikh Mouhamadul Bachir bëgg na njabootu Serigne Touba gépp bëgg na l'islam bi bëgg na léegi laa koy wax ca biir saal ba ni leen li tax ñu gëm ni yóbbante bii lu ñor Serigne Cheikh la Serigne Cheikh la tegul fenn njabootam la tegul fenn yóbbanteem la tegul fenn kon gëm nañu ni fonk na ko te bu amuloo ni tekk-tekk mooy ñëwul boppam waaye ñëw na ndaxte sëñ Abdou Khadre mii fu mu ne fu la Serigne Saliou ne fu la Serigne Cheikh nekk ak njabootu Serigne Touba gépp di gërëm comité scientifique bi nga xam ni ba ñu tàmbalee ba tey amuñu guddi. amuñu bëccëg ñooy maître d'œuvre liggéey bi di gërëm tamit président de la république Macky Sall mi yebal délégation bii nga xam ne ay ministre ñoo ko jiite Makhtar Ba mi jiite ko boo leen demee ngeen santal ñu ko gërëmal ñu ko liggéey bi ba ñu tàmbaleen moom ba léegi lu ci war a jàpp-jàpp la bi ñu président Abdoulaye Wade joxe terrain bii nga xam ne bii lii mënuñu ko woon a ñàkk bi ñu koy liggéey ba di ko liggéey loxoom jógu ci ndimbalam jógu ci kon ñoo ngi leen di gërëm yéen it di leen sant di leen wax ni waxtu wee moo ñu tënk te sëriñ bi dafa war a dellu boo demee daal Mbàkke ne ko bëgg nañu te it nag wax dëgg yàlla lii may wax ci sama biir xol laa ko dund mën nañoo jàpp ni ubbite jumaa ju liggéey géeg lépp mat na ndax sëriñ Saliou lu mu jëkk lu mu jëkk lépp mat na mooy koo xam ni duñ ko fàtte mukk ci àddina duñ ci bëgg a wax sax ndax xaju fi te ko mu mu mu neneen waaye daal maa lay xamal ni kenn du ko fàtte sëñ Saliou Mbacké kenn du ko fàtte waaye nag noonu la mën a demee mooy xaatu sëriñ Touba sëriñ Touba ay bagage bari la indi ñu ko yenn di ko yenn di ko dajale ba mu dajaloo ci moom garaat ba yonent bi amoon ñu koy wax xaatimu nabiyin moo nekk ci Serigne Saliou mooy xaatimu Serigne Touba moo tax noonu rek la mën a mel te kenn ko fàtte maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax jën asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf waxtu julli yu mu